asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu sëriñ bi maa ngi laa nuyu di la ziyaara di la baal xaq di la baalu di sàkku ci it nga baal nu xaq bu baax a baax mu mel ni dañuy delsiwaat ak sëriñ Babacar si radiallahu taala anhu fi nga xam ne fi la yemoonuk ñun ci rawdatu xannaau simtu ayaani fiha garaabu lam taral aynaani wara kumaase ci xaasaahu an yulfa alfata bi nadamatin min baadi ma jalabat ilayhi l amaani nee ñuy fekk nit muy rëccu gannaaw ba nga xamee ne bi jël nañ ko ay mébétam yëpp moo tax mu ne xaasaahu jomb na ko moom Seexul Xaj Malik an yul faa fekkeef alfata cam si bind daametin ci rëcc mi mbaadi maa jalabat gan ba nga xamee ne bijjileef na ko bijj na ilayhi jëm ci kooko al amaani ay mébétam billaahi rabbi laa uxannisu yaa fata xasami alayya bi baari il akwaan yi sëriñ Babacar weddi wuleen ma waaye foog ma giñ nag billahi naa ko ci yàlla rabbi kay sama boroom te laa u xannisu duma teñu mukk-mukk xasami yaa fataa de déet dima war bi baaril akwaani ci yàlla mi nga xam ne mooy aji bind adduna bi innal hudaata humu rijaalu xaqiqatan amin bi tarfika mahmal tuxyaani nee na innal hudaata naka way gindee yi hum ñoom arrijaalu ñooy góori yàlla ya xaqiqatan kon amin mammalal bi tarfika ci sa petu bët bii mahmaha tuxyaani ci mandingu mbewte xool ko foofa su ko defee nga mën a seet ña fay génnewaate ña fa dul génnewaate akrim bi hada sayt wa huwa xalifatun min akmalil xulafaa'i li tijjaani nee na yéemal ak nga ci bi sëriñ nga xam ne mooy xalifa bokk na ci xalifa yi gën a mat ci xalifa cheikh cheikh sidi ahmad tijaan sëriñ radiyallahu anhu moo tax mu ne akrim yéemal ak tedd nga bi hada sayt ci bi la sëriñ te woo moom sëriñ bii xalifatun xalifa la min akmalil xulafa bokk ci xalifa yi gën a mat li tijjaani ñeel cheikh sidi ahmad tijaan sëriñ radiyallahu anhu fa judita yaa amalal wujudi bi juudil kaaf bi juudikal kaafi yaumu idaaka ma axdaani nee na yàlla na yàlla fay la ci sa tabe googu ndax yow ñi la contract ñi ànd ak yow ñëppay mos ci sa yëf yi de yow Seydi fa judita yàlla na yàlla fay ya amal amalal wujudi yow mi nga xam ne yaay mébétu mbindeef yi bi ka ci sa tabe jooju alkaaf yi nga xam ne aji doy la yaumu dana matale idaaka sa ay noon ma axdaani ànd ak xarit ñi talaat lana saada suudi zamanana nanju biha bi nawaibi dabaraani nee na talaat fenk na lanaa ñeel ñu saada suudin man biddiw boobu ñuy wax saada suud zamana na mooy manzila boobu rek zamana suñu jamono bii saada suud biddiw la xam nga am na fu la ko Seydil Hajj Malick di waxee ci classe ba bisri xamsiina amal fi'li qad talaat saada suudin boobu lay junj foofu manzila boobu wala biddiw boobu nan ju daañu muccee bi haa ci moom bi nawaa ibi dabaraani ci fenkuk bidiw boobu ñuy wax dabaraan dabaraan dafa nekk bidiw boo xam ne bidiw bu gaaf a gaaf la tabaarakallahu bu ñëwee rek ay jafe-jafe rek moo ciy nekk waaw tabaarakallahu ba mu nekkee nag di ay jafe-jafe Seykul Haaj Malik ñëw nag tabaarakallahu tax ñu mucc ci bidiw bële nga xam ne mooy bidiw gaaf bi lawlaa wujuduka fi zamaani amaatana asul wusuli wa kasratu dawraani nee na yow Seykul Haaj Malik li ma mën a wax bu la yàlla indi wutoon fii ci jamono marum yegg ci yàlla moom daañu ko def lool ak bërig wëndeelu fu ne daañu fa tañ-tañi pour bëgg a xam yàlla bëgg a àgg ci yàlla waaye dinañu rey rek ndax xam na duñ ko xam law laa wujudu ko bu toon sak am yow Seexul Malik fi zamaani ci seen jamono bi ñuy dund amaatanaar rey nañu lu ñuy rey si mu ne atsul wusuli marum yegg ci yàlla danañu rey rek wa kasratu ak bërig tambaam tambaambalu ñu ne naam daraane te dem gaa yi dina nax rek kon nag gannaaw ba ñu la gisee xam ne ko agsi ci yow yegg na nulji zuhura wala nara min xatin wa yura bina zamaanu ma xarsaani nul ji daa ñu wéer na gannaaw ba ñu agsee ak zuhura ginnaaw it wala nara du ñu gisati mukk min dawxatin benn garabu ndàññamaar mooy du ñu fi gisati beneen sëriñ daal budul yow taw yuraa giseef na binaa ci ñun daal azam aanu dégg nga maam ak mar mal gu ànd ak xiif léegi moom loolu deetu fi amati ndax yow la nga war a def def nga ko mos nañu yëf yi xam nañ fi ñuy taxaw magoog waaqasta daba diini masraa xurbatin wa rafaatahu bi shahadatil buldaani nee na ko yow ba nga ñëw di Cheikhul Hadj Malick di ñëw fii ci senegal da fekk përëgu diine gaa yi mil ko mu nekk lu tumuranke lool waaye nga yëkkati përëgam ba ñëpp gis ko ci réew yëpp nag dëkk yëpp ci senegal ba nga ñëw daal fekk nga Sénégal lëndëm lool waaye nga xeex nga di bëre xeex nga di bëre bu ñëpp dégg diine xam diine ñëpp xam yàlla sopp ko tabaarakallaahu dégg nga wa axasta jàpp nga daba diine përëg baa moom përëgub diine la masra xurbati mu nekk lu ñu nërmeel di tumuranke wa rafaatahu yëkkati nga ko yow bàyyi yow Cheikhul Hadj Malick bi shahaadatil buldaani ci seedeeg réew yi mooy dëkk yi wa tajaddadat fiihi lmacaalimu muxsinan bi binaa'ihi huwa xabtatul buni xibtatul bunyaani wa tajaddadat bees na almacaalimu màndargay diine fiihi ci réew yi muxsinan mooy aji rafetal bi binaa'ihi ci tabaxam woo moom daal tabax yëkkati gi nga yëkkati diine tabaxaat ko xibtatul bunyaani mooy ñeew tabax yëpp tabax yëpp daal moom la ñu ñee maanaam ni ñu ko defaree daal ñëpp ci lañ la ñeeyee wa atayta tahdi saalikiina bi sublihi wa hum daw fi sayri an hayamaani wa atayta dikk ga tahdi di gindi as saalikiina way suubu bi sublihi ci yoonu diine ci yoonam bi maanaam te waxum ñoom ihtadaw gindeeku woon nañu fi sayriñ ci dox an hayamaani gindeeku nañu gannaaw ba nga leen gindee ba pare an xayamaane wala si ngëlmaane di leen wa tafiidu min ko fuyuudu irfaanin fi axsanil jarayaani wa sayaraani wa sarayaani wa tafiidu dana danga wala ngaanal wala dana wala ngaan min tukka ci yow Seydil Haj Malik fuyuudu irfaanin ay bëbbu xam yàlla yoo xam ne jarat daw na fii axsanil jarayaani ci gën jaarafati dawin wa sarayaani ak gën jaarafati rogaatal mooy royaat wa adarta fi bahril xaqiqati fikratan wa tufiduna xikaman kama rayxaani wa adarta wëndeel nga fikratan ay xalaat wëndeel nga ko fi baril xaqiqa ci géeju xaqiqa sa xalaat yëpp wëndeel nga ko foofu tax na wa tufiduna dag ñu jariñ xikaman ay xam-xam yu am njariñ kama rayxaani comme rayxaan ni muy jariñoo ñu ko jariñoo nee noonu nga ñu jariñee ci sa xam-xamu xaqiqa wa tuxiilu min nazariyin ilmin min nazariyin ilmin misla duruña xaabiyan bi maani xam nga ilmu nazar yi comme ni nga xamee mooy xam-xam boo xam ne bala nga ka xam foog nga sonn ci calcul dugg fi lii boo defee lii la doon lii boo defee nangam nangam xam nga daruri yi nag ci moom ni nga xamee mooy loo xam dañ lay wax automatiquement rek mënoo kaa ñàkk xam nga lii la waaye xam-xamu nazar yi yooyu nga xam ne day laaj xalaat bu bëreeg sonn bu bëreeg yi nangam nangam da nga kaa yombal ci ñun ba mel ni dar yi ba mel ni daruri yi yombee ci ñun loolu rek la bëgg a wax. wa tuxilu soppi nga da nga soppi lil fataa ñeel cam si min nazariyin ci xam-xamu nazarin min nazarin ci xam min nazarin tukkee ci nazarin ilmin bay ko jox xam-xam dégg nga mis la darurin comme ni darur yombee xam ci moom noonu nga jël nazar yi soppi ko comme ba mel ni darur yi ci moom mu yomba xam loolu la bëgg a wax ni darur yombee xam xam-xamu nazar ni mu jafee xam ci misaal nga xam ne suñ la waxoon jëlal fukk ci misaal séddale ko dégg nga maam ñaar fukk wala ci nga dina jël ñen ñaar fukk séddale ko euh, téeméeri nit na fa nekke di def nangam nangam di séddale séddale bu yàgg bala ngaa def nii dugg fi génn fi bokkut ak nag boo jëloon ñaar nga nekk nga séddale ko ñaar xam nga ah kenn ko day am benn rek day yomb ci yow. neen nag bële ni mu jafee xam da nga kaa mujj def comme bu yomba xam bi xaar yéen muy aji làkk bi ma ànd ci ay maanaam. wa asabta jotal nga fii falawaatihi ci ay àllam jawfal fara loolu ñuy wax jawfal fara wax nañ la ba tàyyi mooy biiru mbaam àll wa xawayta làq nga arab yi ñoo ko daan rëbb ñoo ko daan ñoo ko daan léeboo léeg-léeg nga dal ci mbir moo xam ne da lay doy sëkk waris ngay uti leneen xam nga kuy rëbb ba dal ci mbir biiru mbaam àll looy ti jaar looy ti mbët looy wutati bar looy wutati kaña looy wutati leneen bu fekkee yàpp doo nga la tax a jug waaye sëriñ bu mel ne Cheikhul Hadj Malick boo ci xasee dal looy wutati beneen sëriñ doy na sëkk wa xawayta làq nga min furasin ci occasion bi kulli makanin wa jamaata fiha shaaridan wa awaabidan wa sabaqta bil fursaani an rihaani nee na yow Cheikhul Hadj Malick wa jamaata dajale aji dàngañ wa awaabida ak aji tippirlu wa sabaqta raw nga an rihaani fa kursu ba bil fursaani ca gawar ga kon nag xamdan li maliki mulkihi wa xakimihi bi liqaa'ina al ustaaza anil jawlaani doy na sant yàlla nag ku yàlla dajaleeg Seydil Hadj Malick wax dëgg yàlla doy na sant yàlla loolu xéewal gënu koo rëy moo tax mu ne xamdan ñoo ngi sant yàlla ak sant li maliki mulki ñeel yàlla mi nga xam ne mooy aji moom nguuram wa hakimi ñeel ak yàlla mi nga xam ne mooy aji ateem bi liqaa'ina ci daje goo xam ne may nañuy dajeg al ustaaza usbaasa ustaaz ba di Seexul Hadj Malick an jawlaani wëlis ñuy tambang tambangi ku ne di wëndeelu fu ne da ngay ci baytu ñaareel bi aska salaati maa salaami lan alal mu xafa yàlla na nekk ci yenent bi saydi salaati man mooy ka nga xam ne asra rañaane na bii ci moom mawlaahu boromahu moom yu daani maa daara fii mi ngi wëndi la al aflaak falag yi wal malawaani ak jant ak weer wala guddeeg bëccëg wa bi aalihi ak ñoom asaabi hum ñoom ñi nga xam ne saxaabaam yooyu an jumun ay bidiw lañu ñu muqtadi ñeel way roy sabiluhum seen yoon daal ku leen di roy dana teeri ba lil jinaan maa lil jinaani maa jëm aljana rek tabaarakallaahu dafa mel ni kat euh, xasida googu foofu la yam incha allah ñu ngi jéggalu nag ci leeru li yéeg yëpp rek ñu ngi ciy jéggalu asalaamaaleykum wa rahmatullah